bismillahi rahmaani ginnaaw bi ñuy sant yàlla di julli ci seydina imaamul mahdi walaay imaamu kuli imaam wa ilaam war a may ni di ñaanal Mouhamadou Makhtar yàlla na ko jàppale yàlla na ko yan bi di nuyu njabootu seydina imaam yëpp chef village ak euh, euh, ñu jiitu jigéen ñi Adja Ndeye Anta nekk ci seen ci seen kanam avant may nuyu ñoom yëpp dama ci jiital euh, dun pàtt mbeng ak ses adjoints Mamour ngi fi ak ñi ci des ak tout le conseil municipal cérémonie bi nag dañ koy limiter rek ci loolu parce que moom moo war a wax ci parce que bi ñu commencé affaire appel bi toog ñoom ñu doog a toog te commencé wuñu ko sax ci appel bi ci ñaanu ci app euh, ci ñaan commencé ñu ko ci ñaanu Seydina Issa dañ ko commencé ñoom ci appel bi boobu ñu ngi doog toog mais quand même jox nañ fa maye nañ fa nag ñu ne nag ñaanu moom Seydi comme que da ngay il faut que ñoom ñu dugal seen loxo bu Cambérène yëpp yéeg nii defal nañ seen loxo li ñu njëkk def ñoom dañu réunir seen conseil municipal Ticidinie dañ ci taxaw taxawaay bu mat organise fa benn symposium aujourd'hui ba pare activités yi ñu fi def yëpp depuis la semaine dernière ñoom ñëpp teew nañ ko ba duñ passé koro mu def fi benn conférence bu ñu tuddi que maintenant le maire le maire oustaz le maire oustaz <laughs> le maire oustaz donc seen taxawaay ñu koy rafetlu tey jii nag ñu ñëwoon aussi di gën a jàpp mooy Mahmoud bi ñëwee ce matin andi na fi benn yëkk la wax de mooy nag bu mag yëkk bu mag yëkk ba nag am lu ñuy yoroon seen loxo aussi nii day ñëw jàppale ko jigéen ñi man nag je parle au nom comité comité bi nag jigéen ñi suñu bokk ci ñoom laa gën a far sax di góor ñi parce que yenn saa yi il faut moom mooy ma sot pour que góor ñi mën a gën a yëkkat seen loxo di gërëm jigéen ñi góor ñi nag parce que bi ma ko jëlee ba léegi ça fait 2015 ñoo ngi Mamour ñi ñoo ci ñoo ñoo ci àndoon mun na mu diffusé woon tout de suite rapport mais yàlla def na ba ci appel bi dañoo am daaw bu mu ëpp ci lii aussi xalaat naa ne ak li ñu indi muy ëpp daaw li ñu amoon donc bu ko defee aujourd'hui euh, di leen gërëm di sant maire parce que loolu mooy cérémonie bi mais nag man au nom du comité laay wax mais comme ab Ablaye mbay mii laay àndaloon mooy Mamadou Diop ak Mandione falaan fekk ñu yor ko ñuy ñëwee aujourd'hui ñuy ànd donc dama koy bàyyi Ablaye moom wax au nom du village parce que aujourd'hui moom a gën a nekk mag moom a gën a yey ci waxu waxu dëkk bi donc bu ñu ko defee après jox en fait euh, alaaji dumpaate wala euh, ndey anta bu leen gërëm ba ba pare aujourd'hui ñaan ñi ngi nuyu ñëpp di di sant ñëpp di gërëm ñëpp ci turu chauffeur bi di alaaji Doudouane ak alaaju si naa mbëgge ñoom la yàlla dénk dëkk bi tey waaye ne bañ leen ko dénkee ñoom it dañu jël liggéeyu dëkk bi tekk si ay loxo yu sedd te mbay faal mi jiite ko ñi ngi ñëw di nuyu maire ak stafam bi mu àndal maamu ñi ngi leen di nuyu ñu ngi leen di sant ci ndigalu dëkk bi di leen jaajëfu ñu ngi gërëm ñépp di sant ñépp di leen xamal ni la ah ñun ñu ngi sant yàlla ci yokk-yokk bi yàlla defal ñu ndaxte yokk-yokkute la wax dëgg yàlla ah dëgg dëkk fi newoon daan na def de waaye yéen ñii fi nekk tey jii lii ñu am nii masuñu ko am kon nag ñu ngi si sant yàlla bu baax di leen ñaanal bu baax a baax a baax ci turu dëkk bi yàlla li ngeen yéene dëkk bi yàlla na leen ko yàlla defal yàlla na leen ko yàlla defal monsieur le maire ñu ngi lay gërëm ci turu euh, kilifa yi di la sant bu baax a baax e di gërëmatim borom kër gi ñu ngi koy ñaanal muy alaaji Maguette Seck parce que duñu tàggu mukk fu nu ne di ko gërëm di ko sant parce que lii yëpp moom la waaw bu yaatalu loon aji aji nayant kon du man lii mu man waaye tey ji yaatal naka ba aji ndey ant Cambérène gépp wóolu ko dénk ko dëkk bi kon nag ñu ngi lay ñaanal liggéey bii nga dugg yàlla naka seen borom ba jeexale si bismillahi rahmaani rahim jeexale ko si alhamdulilahi rabil alamin ñu ngi lay gërëm ñu ngi lay sant si turu sa njaboot gii la jàppale nag ñoom it ñu ngi leen di gërëm di leen sant bàyyi sale ñu ngi leen di gërëm tey la yéen la fi yàlla bàyyi ak moo du Faye ñu ngi leen di gërëm ñu ngi leen di sant dégg nga di gërëm di sant bu baax a baax a baax e njabootam gu jigéen gii nga xam ni bàyyi wun nay anta benn yoon ñu ngi si jàpp guddeeg bëccëg fu nu wëlbatiku seen leen si wetam te ñu rafetal yëpp ñu ngi leen di gërëm si turu dëkk bi di gërëm mbay ñoo ngi yokk di la gërëmaat di la sant bu baax a baax yow jàmbaar nga te da nga xéer xéer xéer ba mu ëpp kon nag yàlla na la yàlla jàppale si lii nga nu jiite ñu koy doxale nii ba fi Cambérène fu ñu ko bëgg ñu yóbbu fu ko gën a kawe yàlla nañ ko yàlla defal si barke bàyyi Laye war nañu maam Seydi loolu rek lañ si amoon lu ñuy wax ngeen baal ñu wax. asalaamaaleykum mbooloo mi maa ngi leen di nuyu seen tur ak seen sant di ñaan yàlla xalif général Modou Makhtar yàlla na ko suñu borom yàggal yàlla na ko suñu borom yàggal yàlla na yàlla oyofal yan bi ah di nuyu mbooloo mi fi teew te duñ paate nekk ci bopp bi le maire. ñu ngi lay gërëm di la sant di la ñaanal yal na la yàlla may ndam yàlla may la fanu gudd ak ug wér yàlla dolli la ay xéewal lépp lu moo bëgg si dëkk bi yàlla na ko suñu borom defal ah maa ngi wax si turu aji ndeyant aji ndeyant mu ngi leen di gërëm di leen sant di leen ñaanal li ngeen man ren yàlla na ngeen man déwén lu ko ëpp barke Mario ak isaa di ñaan yàlla El Hadji Maguette set foofu mu tëdd leer na mën a xolam sedd na te fii ñu toog leer na ma ne mu ngi jàkkaarloog ñoom lii rek la la ma sa bëgg bu doon moom du mën a wax ndax jooy kon nag ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen ñaanal fa mu tëddee yàlla na ko yàlla yërëm te yeexal yàlla yeesal ay leeram barke maa di ak sa ak ñamu fa fekk ñu ngi leen di gërëm di gërëm ñëpp di gërëm itam aji ndey neen mu ngi gërëm xale yi nekk ci ëtt bi ndey mbaay nekk ci bopp ak Marème Seck jàppale nañ ko bu baax jàppale nañ ko bu baax nee na mu ngi gërëm itam waa dëkk bi mu ngi gërëm waa dëkk bi jigéen ñi dëkk bi yëpp mu ngi leen di gërëm amee lu leen benn kii mu ngi leen di gërëm di leen sant di leen ñaanal yàlla yàggal leen seenu taxawaay yàlla yàggal seenu taxawaay yàlla may leen fanu gudd ak gu ak mujj rafet yal na leen yàlla defal jàmm defal ko mboolum di ajanda yante lii ngeen nekk sumba yàlla na leen ci yàlla defal ndam yàlla wàcc leen ci barke bismillaahi rahmaani rahiim alhamdulillahi rabbil alamin mbay ñu ngi lay gërëm di la sant ñu ngi lay gërëm di la sant taxawaay rafet na démb rafet na tey parce que at mu jot dëgg yàlla doo tëdd guddi doo bëccëg yaa ngi si dëkk bi di daw guddi ak bëccëg te dara waralu ko rudul teraa ngay dëkk dëkk bi rafet dëkk bi ñoom kon nag ñu ngi leen di gërëm di leen sant Alaaji Ablaay Baay Ablaay Caw Mbay ak Baay Duudu Jóob ñu ngi leen di gërëm di leen sant Baay Màgget Seck seen taxawaay rafet na ci moom taxawaay bi rafet na trop kon nag ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen ñaanal mel na ni bàyyaa ngi fi toog yal nañu yàlla dolli sutura defal ñu ay xéewal may ñu fan gudda ak wér ñaanu maam Seydi gi yàlla na ko ñëpp a teewe barke Madi Yog sax ñu fekk déwén fekk dawaati ay déwén barke Madi Yog Sa alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi rabbil alamin barke Baye Laay war may maam Seydi nuyu ñëpp ñi toog fii di jiital nuyoo bi monsieur le maire Doudou Pathé Mbengue ak adjoint mi ñu àndal ak conseil municipaux yi ñu àndal yëpp di sama yaay ji ñu fi fekk si muy Adja Ndeyanta ak waa këram yëpp ak njabootam yëpp di nuyu beral nuyoo mbay faal bu baax a baax ak euh, tonton njin mbay mii toog fii ak waa ëtt bi yëpp ñu ngi leen di ziyaar bu baax a baax di am mbégte di fekk di sant yàlla tamit fekkee ko fekkeewaat ko ndax euh, Cambérène ku ne xam nga ne jigéen ñi kenn waxtaaneetu lu dul ñaanu maam Seydi kenn xoolatu lu dul ñaan bi jigéen ñi nekk jigéen ñoo xam ne man di dama leen naw ndax dama bokk ci waañ bi yàlla daf ko def ma bokk ci waañ bi di sant yàlla bu baax gis nag nit ñi ni nu taxawoo jigéen ñi ku nekk yaa ngi soññ sa moroom ku nekk naan indi sa cotisation dafa nit dina ci xuloo sax pour barkeelu ci ñaanu maam Seydi te nag amuñu nag lu dul moom fii ci Cambérène waaw ñu gannaaw yàlla ak bàyyi laay alayhi salaam maam Seydi la ñu am kon bu bisam taxawee ku lu ci waay taxaw rek xeeb nga ko lu ci waay def rek xeeb nga ko ñuy sant bu baax ñi nga xam ne ñu ngi ciy taxaw jigéen ñi ay jàmbaar lañ ndax bu du woon ñoom dara du baax loolu moom yàgg nañ ko waxtu gis nañ ko firndeel nañ ko ñuy sant bu baax monsieur le maire parce que taxawaayam moom lépp lu muy wax rek dafay wax ne man maam Seydi ñaan bi lu muy def wax ak nit ñi ne leen def leen nii ma def luñ ko wax rek mu ne déedéet loolu tuuti na xaale ma def lii loolu yëpp yéene la à dayo la te nag dëkk bi loolu la laaj dëkk bi lool loolu moom moo fi war a ne looloo fi yella lépp lu ci waay def yal na la ko yàlla fay yal na la ko ya maam sey di fay ñun daal xam naa ne sant nañu te maa ngi wax au nom de euh, sama euh, sœur sama doom sa nafi mi toog nii ndax moo ma forcé sax ma wax bugguma woon di wax ci biir nit ñi parce que ñun fi ne ñu li nuy dund ñaan gi moo ñu ëppal solo foofu ay wax yi yàlla na nu yàlla may ñu fekkee ko yàlla def fi jàmm jigéen ñi togg ci jàmm ñu bañ cee am benn incident kenn bañ cee mer ñëpp muy mbégte ndax mbégte la yàlla na ñëpp yëg mbégte mi àdduna bi yëpp yëg ko yàlla def fi jàmm ak salaam ñu yàgg ko teewee yàlla yàggal fi sunu meer yi ñu yàgg di leen fi fekk jaa ngeen jëf laay waxtaan. Seydina wa nabiyana Muhammad Seydina imaam Allahi al-Mahdi alayhi salaatu wa salaam Euh, ñu ngi tàmbale suñuy kàddu di sant borom bi subhaanahu wa taala di julli ci yonentam bu tedd bi demb ak tey sayidina imaam allah euh, di nuyu di ziyaar suñu xalifa Mouhamadou Makhtar Laye euh, di jaar ci moom nuyu mboolem njabootu ahlul bayt rasul moom suñu sang boobu di ko ñaanal gudd fan ak wér di ko ñaanal lépp lu mbebet bébét naal ko ci diine maamam ji yàlla mottali ko di nuyu mboolem kilifay Cambérène jiital ci les chefs de village Baye Doudouane Baye Issa mboolem notable bu Cambérène yi imaam Dieng loo jaar ci moom nuyu mboolem imaamu Cambérène mais it nuyu suñu délégué de quartier yi ñu nekkal ci biir quartier yi nuyu mbooleem kilifa yi mais jaajëfal bu baax it euh, euh, ñi ñu àndal mooy le conseil municipal le bureau municipal accompagne ñu vraiment ci li nga xam ni dañu woon yéene la bu ñu amoon ci ñaan gi muy participer ci waa waañu Seydina Issa loolu tey moo ñu fi indi ah, ñuy jaajëfal bu baax les membre du comité locale si jiital mbay Fall ak mboolem ñi mu àndal ñuy def liggéey bu am solo ci lépp la nga xam ni événement religieux la buy am Cambérène rawatina événement bii nga xam ni mooy ñaanu Seydina Issa Rouhou Laye euh, ñu am ci yéene comme niñ ko waxee ci yeneen jotaay ànd ceeg euh, macha allah euh, sang yi macha allah ñu mën ci cité Idda Cheikh. Euh, Seyna Laay ak mboolem njabootu ahlul baytu rasul vraiment yi nga xam ni kenn ku ci nekk am nga yéene ci ñaanu ñaan gi nga xam ni euh, wax dëgg yàlla bu ne Seydina Issa Rouhou Laye wax nañ diine ji yëpp euh, li nga xam ni wax nañ ko mooy waxati ko mooy Seyna Issa mooy sanca Cambérène gi ñu ne en 1914 donc tey ji bu amee un événement religieux d'importance ci Cambérène ginnaaw appel bi ñaanu Seyna Issa la moo tax commune bi jël ñaan gi def ko vraiment activité am jël ko lépp la nga xam ne activité préparatif la pour waajal ñaan gi ñu dugg ci bu baax mais it indi suñu participation bi nga xam ni moom mooy jëmmal ñaan gi a ah, ñuy ñaan suñu borom subhaanahu wa taala lépp luñ ci mbëbët yàlla defal ñu ko mais lépp lu ñu ñaan ci bis boobu muy bés Seydina Issa yàlla defal ñu ko ci Cambérène di woo di lancer appel à tous les Cambérénois ah, ñu approprier wu ñaan gi ah, ñu yaatal kër yi defar nettoyer gan yi fii teeru leen mais ñu dund ñaan nga nga xam ni ñaan ko mucc ayib la comme niñ ko yéenee euh, Seydina Issa yaakaar naa ku dëkk Cambérène képp ku nekk Layeen wala nga nekk sax Sénégal am yéene ci diine ji jox nga ko cër ndax euh, maam Seydi waxtaane nañ ko ci ay jataay euh, moom viom symbole la maam Seydi c'est un modèle parfait un prophète mais un wane engagement citoyen ba nga xam ni contemporain mi kenn naatable wu ko woon ba mu tuddee ko woon le grand marabout de l' Afrique de l'Ouest donc kooku la ñuy célébrer kooku mooy Seydina Issa Rouhou Laye ñu ngi ci woo mbooleem diine ji di ci woo mbooleem Cambérène mais di ci woowaat les conseil municipal ak ñi nga xam ni tey jii am nañ baat ci Cambérène euh, di ñaan suñ borom subhanahu wa taala may ñu koy teewe ay déwéni déwén lu ñu ci def rek comme ni yéene bi ñu am tey ren def ko ci déwén ñu am lu ko raw mën ko def ci ñaanu Seydina Issa Rouhou Lahi ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen souhaiter un euh, bon ñaan jaajëf Laye Makhtar